Eh, bu ngeen gisee nag place bi ñu taxaw tey ngeen xam ni ñoo ngi fi Lat Joor Ngoone Latir Diop daanu le 27 octobre 1886 fii ci tool ndijaayam maam Jéey Joor wax dëgg yàlla àndoon nit ak askan yu mag yi di am victoire yi xam ngeen ni duma na tubaab bi fu ne ci senegal atam yi mu dund bariwul 1842 la juddu génn àdduna 1886 44 ans 44 guerre xam ngeen ni duma na tubaab bi ba tey Louga duma ko mexe ju njëkk ak ju mujj duma ko ngol-ngol duma ko Paté Badiane ca Saalum Paoskoto Lat Joor Ngoone Latiir gàcce ngalaama Sénégal gépp la amal njukkal loolu nag tey jii moom lañ ñëw pour defal leen ci ay waxtaan ngeen gis nii ci sama ginnaaw fi nga xam ni fa la Lat Joor Ngoone Latif Jóob daanu le 27 octobre 1886 ci heure bii euh, li ma ci yëg mooy euh, bànneex li ma ci yëg it mooy gën a am jom te war a gën a bari euh, lu ma jom ndax su Lat Joor nungoo dem deqale xamoon na ni bi muy dem deqale dafa mën na faa dee mais nag loolu nangu woon na dee pour kolon bi bañ ko yilif ci biir Kajoor parce que li mu nanguwul woon mooy keneen yilif ko moom ci Kajoor loolu moom nangu ko woon parce que moo doonoon dammeel euh, loolu nag li mu nuy jàngal mooy ni euh, kenn ku nekk ci nun muy Lat Joor muy ñamu àndaloon deqali ñu dee fa parce que du du Lat Joor rekk a dee deqali bari na ay sénégalais yum àndaloon yu dee deqale ñooñu ñu seen tur ndax histoire tey retenir rek ki nga xam ni moo jiite kon ñooñu nga xam ni ñoo dee deqale seeni sët yi ak sëti Lat Joor yi ñoom ñépp ku ci ne war nga xool sa maam la mu nungu woon a jaay bakkanam ngir tubaab bi bañ ñoo dominer kon loolu bu fekkee tey ñëw nañu tey ba nekk ci Sénégal nga xam ni xare amatul li fi am mooy république lañ nekk li fi am mooy euh, gestion moo fi nekk administration moo fi nekk kenn ku nekk ci nu poste bu ñu la mën dénk lépp loo fay def war nga xool Lat ak ñamu àndaloon ñu dee deqale te nangoo joxe seen bakkan ndax kajoor loolu ak geste booy posé war nga xalaat loolu. waaw man maa ngi tudd colonel Mandikou Guèye di nekk ci di diriger lu ñuy tuddee jiite lu ñuy tuddee euh, division musée mooy partie bu nga xam ne bi lépp lu jëm ci musée la et kuy nekk sunu kilifa nag mooy direction des archives et du patrimoine historique des forces armées mooy wane ni ñun bokk ministère des forces armées foofu la ñuy moom lañuy ñuy liggéeyal mooy wane ni bokk armée ak gendarmerie li ñuy liggéey ci mbir moomu la dugg. archives et du patrimoine historique wante bu ñu fàtte ni direction des archives et du patrimoine historique dafa am ci biir benn pàcc bu nga xam ne bi affaire musée rek lay toppatoo donc mooy li ñuy war a inaugurer tey. ñu fekk ni it yàlla def ni musée boobu am na ñu nga xam ne ñi seen xel dafa ca màcc ndax dañu dem jàngi formation am seen lijaasa lu nag donc ñu xareñ ci lu jëm ci muséographie donc ñooñ lañu jël ñu jàppale leen ci loolu ba bi ñuy installé musée beeg yëpp donc euh, loolu moo waral sunu teewaay fii tey. mais est-ce que musée bi nii ñu ko defaree armée bi taxawu ko ndax di ngeen continuer di ko gën a toppatoo pour que quand même nag euh, jeunes yi. ak sénégalais yi di fi ñëw gën a xamante ak Lat Joor. waaw xam nga musée euh, lu ci ëpp nit ñi dañuy foog ni rek fu nga xam ne la dañuy jël ay mbir yu màgget rek teg ko fa mu nekk bu ya bàyyi ko fa ba mu nekk poussière ñun ci sunu xalaat ci sunu gis-gis ñun dañu am vision prospective mooy dañuy xool tey ak suba lan la ñu bëgg musée bi mel bëgguñu ñu inaugurer ko rek tëj euh, xalaat nañu déjà wut ay gardiens yu fi nekk pour. di ko sécuriser ndax dañ fi ñëw denc ay objet beneen bi mooy wut sax ku nga xam ne ki ñu ñoo koy former ndax am na ñun ñu ko mën a former lu ñu tuddee guide mu mën fi nekk conservateur bu ko defee moom tamit bu nit ñi ñëwee par rapport ak scénographie bi ñu ko présenté mooy mbir mi ni ñu ko présenté ak histoire bi ñu fi raconté ndax du benn scénographie kese moo fi nekk ndax dafay évoluer bu teyee mën nañu wax ci Lat Joor ëllëg ñu wax ci dembawaar War gannaaw ëllëg ñu wax ci Sëriñ Touba ñëpp ñu nga xam ne ñi Lat jot na am ak ñoom donc donc ay mbir daal. donc bu ko defee nag kooku moom chaque fois dañ koy former ba nga xam ne bi moom loolu mooy doon liggéeyam. bu bu nit ñi ñëwee daf nañuy def ba nga xam ne bi école yi yi nekk ci gox bi yëpp ba pare dañ fiy ñëw di visite mais bu loolu weesoo it Sénégal ndax bul fàtteel ni nag wala xëy na ñu bëri xamuñu ko. école nationale des officiers d'active bi nekk cees bi ñuy jàng former officiers yi fii ci Sénégal ñaari at yu ne dañuy di ñëw fi deqale ndax bu fekkee ren dem nañu ngol-ngol xëy na déwan ñu ñëw fii ginnaaw beneen déwan bi ci topp ñu dem Casamance donc dañuy di wër Sénégal donc loolu bu weesoo nag léegi dañu bëgg école yi mooy euh, tout tànk yi ñu commencé di ñëw ñu won leen kan moo doon Lat Joor won leen lan la Lat Joor doon incarné lan la war a mën a ci lu baax lu nga xam ne mën nañ ci roy pour mën a dem ci kanam ndax nit pour nga mën a dem il faut nga am foo sësu pour mën a dem fi ngay sësu nag mooy sa histoire te sa histoire nag bu fekkee ni laaj na ba nga xam ne boo ko déggee sa yaram daw day tax nga ni man mii kat fi ma nekk nii waruma fee ñaaw donc war naa mën a dem ci kanam loolu la ñuy xaar ci école yi donc euh, bu ko defee bu ñu commencé gox bi jëm ci diwaan bi bu yàggee ñu jëm ci réew mi Sénégal amoon président bu mel ni yow yaa cinquante ans Sénégal vraiment vous êtes grand travailleur. fii président mi ngi fi que cër président Abdou Diouf 1986.

tous les héros nationaux qui sont tombés pour la patrie. Je vais laisser parole au colonel Cap, qui va essayer de parler de la déposition En plus, euh, excellent, alors plutôt, plutôt, de la coopération que nous avons avec le ministère de la Culture. Le ministre des Forces armées a commencé par adresser une réponse à ce pour souligner l'importance de travailler ensemble. Parce que au niveau de ma direction, nous avons une mission de conserver, ensuite de diffuser tout le patrimoine national. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous allons travailler avec le ministère de la Culture et en particulier avec les familles et les résistants sénégalais contre voilà, euh, l'occupation que euh, le ministère de la Culture travaille sur quoi Alors faire connaître l'histoire militaire Sénégal. Donc, le deuxième temps, raffermir les liens armées-nation. Notre cible est essentiellement euh, centrée sur les groupes scolaires, sur les élèves. Et enfin, et enfin, essayer de développer à travers cette coopération, toujours avec le ministère de l'esprit de démocratie. En général, tout ce qui est civilisme, citoyenneté, etc.

pour bëgg ko sulli yóbbu ko exposé ko gars yi jàkkaarloo wax ak ñoom ñu mujj daw bàyyi ko fi monsieur le président de la république guddi na bëggoon nanu nga defal li nga defal famille religieuse yi benn maison boo xam ni at mu ne dañuy célébrer la la mort de Lat Dior bëggoon nanu une grande maison loolu nit ñi ñaan nañ la ko une grande maison boo xam ni day accueillir les touristes les visiteurs et les familles religieuses qui viennent ici et coutumières yoon wi wax nañ ko Thilmakha benn forage la am forage bi am na 60 ans monsieur le président forage bi am na 60 ans village bi dafa triplé quatre dafa quadruplé cinq cinq fois mënatuñu naan ci forage bi forage bi day panne lu mat ñaari weer ci ay dégg la ñuy naan ñi ngi ñaan benn forage na nga nu ko may mën nga ko vous, euh, vous avez le courage ma ñëw ci yow vous avez le courage vous êtes jeune je vous donne un exemple Macky Sall est un exemple sorti de très loin il s'est bagarré seul dans ce pays que nous connaissons il est parvenu au sommet de l'État avec ses moyens avec son courage avec sa détermination Macky yaa xeexal sa bopp ba agsi ci kaw noo ngi la ciy gërëm tey wax ni xale yi nañ xool ci yow te bàyyi bomb bi bomb bi ëpp na nañu xool ci yow te ñu war carte yi wala yi jox la ko maa ngi ñaan sénégalais yi di ñaan sama mbokku lébu yi ña nga ne ca kaw ay góor dong lañu na ñu jël carte yi jox ko Macky maa ngi woo sëriñ si Kajoor Kajoor ak Baawol maa ngi ñaan ñu ak Kajoor ñu jël kart yi jox ko Macky parce que mënta bañ a am ñaari mandat li mu fi def ak li mu yénn ci réew mi pétrole feeñ na lool rek laa ciy wax ak gaz yi ci des asalaamaaleykum mbokku daxale asalaamaaleykum mbokku Kayoor asalaamaaleykum mbokku Sénégal bés bi tey dafa nekk bésu histoire ak bésu reconnaissance boo xam ni damel di Kayoor ñu neexee na damel teeñ Lat Joor Ngoone Latir Jóob fii de tëdd doon bañkat doon jàmbaar doon royukaay Léopold Sédar Senghor jël ko joxe ko en exemple ñu cité ko comme héros national ndax dafa bañ ba jóge fii kon déjà président Abdou Diouf moo amoon idée musée bi ñu def fi mosole bi ministre de la culture ci yéeneem ñëw dal di tàmbali musée bi ñu gis fii waaye dama jàpp ne suñu histoire dañ ko war a xam ndax lu bëri dafa ëmp nit ñi ndax Sénégal itam dafa am fu mu jógee ba yegg si fii moo tax maa ngi encouragé waat mbindum histoire générale du Sénégal historien yëpp si njiitalu professeur Iba Der ñu ngi ciy liggéey pour que Sénégal ci njalbeen ba fii ñu toll tey ñu mën ko bindaat wax taarix yi ci biir loolu Lat Dior ci am place bu am solo moo tax ma ni Derklé mérité d'abord ñu xëcc tali bi ba fii dinaa ko def bu ci yàlla ànde dinañ andi tali bi def courant ci dëkk bi def fii forage su ko defee mu neex a ñëw neex a dëkk ku bëgg a xam histoire boo ñëwee ba fii su boobaa musée bi dinañ ko yaatal ba nga xam ne dana mën a am ay mbind am ay pièces wala leen amee ay pièces historiques ñu mën ko exposé suñu histoire ñu mën ko génnewaat ndax jàmbaar dañ ko war a kañ jàmbaar dañ ko war a kañ loolu nag moo tax dafa nekk lu ma touché personnellement euh, may wax sama xarit Ibrahima Masek Diop di wax itam suñu mag Sangone Sall ak Papa jin ak mboolem njaboot gi njabooti Lat Dior xam leen ni daal gouvernement bi dina gën a taxaw seen wet au-delà du Kayor dinañu ko def aussi ci yeneen site yi nga xam ni ay jàmbaar ci Sénégal taxawoon nañu xeex ngir dignité doomu adama ngir dignité nit ku ñuul ngir itam réew mi moomoon boppam li ngeen wax it dégg naa ko ci wàllu édifice taa ko examiner de toutes les façons bu ñu waxee musée danañ fi def bërëb boo xam ne bu nit ñi ñëwee daañu am fu ñu toog am fu ñu waxtaanee am itam n'est-ce pas fi fanaane sax bu leen neexee yaakaar naa loolu ngeen ma laajoon kon bu ñu fi yàlla bàyyee incha allah loolu dinañ ko song ci anam yu gaaw li ngeen wax aussi si journée nationale bi mën nañ ngeen ci jàppale te dafa jaadu donc loolu dinañ ci waxtaan ak yéen pour que ces journées nationales des héros ñu mën ko wax fii ba Casamance fii ba Fouta fii ba Sénégal oriental que tam réew mi dafa amoon ay ay ay ay royaume amoon ay ay état yu ndaw ba ci lëbu yi loolu yëpp dañ ko war a feeñal bind ko nit ñi xam ko parce que ku xamul fa nga jóge xamul li nga doon mënoo xam fa nga jëm donc looloo tax maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm épée bi mu wax fa président président Abdou Diouf dencoon mooy li gënoon ci jamono jooju ndax bureau chef d' état major général kenn du fa ñëw di sàcc épée du dëgg kon fa mu nekk dafa amoon garantie léegi nag am nañ musée national yenu na maana ñu yóbbu ko foofu buñ ko paralee n'est-ce pas espace am loolu ministre de la culture dina ci waxtaan su paree ma waxtaan ci ak ministre des forces armées ak général chef d' état major général loolu amul jafe-jafe su ko defee ñi bëgg a visiter dinañ dem ci musée ba parce noonu incha allah